أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ci kàttanu borom bi tey noo ngi dugg ci juróom ñaareelu saar muy suura al araf mu nekk makkiya saar bi wàcc màkk ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala tey muqaddima bi la ñuy jël ñu xaaj ko ci juróom-ñaari tomb ñu wax saar bi lan moo nekk ci moom lu tax mu wàcc ak lan la ëmb moom saar bi li muy nettali ci ay histoire ak ci teewaayu yowmal qiyaama ak di nettali qissa yonent yi alayhimu salaam waaye di nettali mbir yu bare bari yoo xam ne ab jullit war na ko peeg war na ko xam bi ci njëkk mooy suura al araf min atwali suwar al makkiya saar bi di araf dafa bokk ci saar yi nga xam ne ci saar yi gën a gudd yu wàcc màkka saar bi ci la bokk saar bi wàcc na di faram-fàcce lenn ci histoire yonent yi alayhimu salaam ak seeni yitte yi leen yàlla toggoon ñu war koo jàllale xam ngeen ne saar yi wax mbirum màkka wàcc màkka di nettali histoire yi li ëpp lu ñuy wax mooy usulu daawa al islaamiya mooy keno yi cosaan woote lii nga xam ne mooy mooy yenu islaam te mooy kennal yàlla mooy tawxid saar yi wàcc màkk lépp li ñuy wax mooy kennal yàlla nañu wéetal yàlla ak di saxal dekki bu nu faatoo yàlla dana nu dekkilaat waaye di saxal yàlla dana nu fay waaye di saxal wahyu lii yàlla tabaraka wa taala wàccee ci yonentam alayhi salaatu wasalaam ak message bu mu ko yónni moom yàlla saar bi di surat al araf ci njëlbeen ga nga xam ne dafa wàcc di wane kéemtaanu yonent alayhi salaatu wasalaam mujizal xaalida li muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di wane alquran bi wàcc ci moom alquran nekk téere bu sax boo xam ne àddina bi yëpp yàlla subhanahu wa taala dëkk na leen dëkk na leen wax leen nañ indi rek benn aaya bu mel noonu boobu ba léegi indi wuñ ko kon saar bi dafa wàcc di saxal mucjisa yonent bi alayhi salaatu wasalaam kéemtaan gi ko yàlla jox waaye yàlla di saxal ne alquran bi yàlla jox yonent bi nicma min arrahman xéewal la gu réy gu bàyyeekoo ci yàlla tabaraka wa taala bàyyeekul ci ma sàmba bàyyeekul ci ma demba alquran xéewal la gu yàlla jox sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye yàlla wàccee ko ci mboolem doomu aadama yi jamaa ñoom ñëpp comme ni mu ko waxee kon lan moo leen war fa alayhim an yatamassaku bi tawjihaatiha aw bi tawjihaati li leen war mooy comme maadaama yàlla ko wàccee jox leen ko li leen war mooy ñu jàpp ci alquran boobu ci ay orientation ak li muy jubal doomu aadama yi ngir ñu texe ci ñaari kër yi texe këru àdduna waaye ñu texe ëllëg allaaxira dajeek sunu boroom dugg aljanna loolu mooy première mbir bu nekk ci saar bi deuxième bi mooy wala fatat al anzar saar bi dafa tourneloo nit ñi seeni seeni gis-gis nit ñi daf daa- dafa am fu ñu doon xool saar bi ñëw tëye ci seeni kanam seeni bët ne leen fii ngeen di xool du foofu xool leen fii ila nicmati xalqihim min abin waahid wa ummin waahid saar bi ñëw di wan nit ñi xéewal gi leen yàlla defal yàlla bind leen ñu jóge ci benn baay min abin waahid kullukum min aadama wa aadama min turaab waaye yàlla di wane teraanga bu mu defal doomu aadama ci juddu gi mu juddu am ndey ak baay ñun ñëpp ñu juddoo ci aadama loolu teraanga la yàlla teral xeetu doomu aadama da ngay dégg alxuraan naan walaqad karramna bani aadam yàlla xeeta lañu ci abil bashar muy aadama alayhi salaam aadama moom nga xam ne allazi amara allahu almalaika bi sujudi la yàlla dajale na malaaka yépp ci arsh ca aalamul arwaax ca kaw asamaan ca pey yu sell ya yàlla dajale na fa malaaka yi ne leen usjudu li aadam sujootal leen aadama loolu taraanga gënu ko rëy sunu baay sunu maam aadama yàlla dajale malaaka yëpp ne leen sujootal leen ko loolu mbokk yi xéewal gënu ko rëy te loolu yàlla daf koy nettali ci saar bi waaye summa hazarat min kaydi shaytaan ci saar bi yàlla tabaraka wa taala mu ngi ñu ci mooy te ndikuloo pexe seytaane zalika al aduwul mutarabbis noon boobu nga xam ne dafa noonu ba pare waaye yemul ci noonu waaye def ñu won noonu gi ba pare nekk ci di jëf loolu nga xam ne mooy dëggal noonu gi pour mu am liy yàq sunu digganteeg sunu boroom ba tax yàlla tabaraka wa taala di ñu bàyyiloo xel noon boobu innahu lakum aduwun mubin noon boobu nga xam ne mooy iblis borom bi di ñu wax ci saar bi pour ñu war koo moytu yàlla sax wax ak doomu aadama yi woo bi mu leen woo mooy yaa bani aadam wa huwa nidaun xaasa bi hadihi suura ci saar bi la yàlla jagleel doomu aadama woo ko ci baat bi ne ko yaa bani aadama e yow doomu aadama kan mooy doomu aadama mooy nun yuhaziruhum biha min aduwihim alladi nasha ala adawatihim min qadimi zaman noon bi nga xam ne daanaka ak noonoom ca njëlbeen la woon démb la woon bi yàlla di bind aadama la ko iblis noonu woon te lool du deñ yàlla bàyyiloo xel ndeysaan doomu aadama ci noon googu noonu googu nga xam ne iblis dak koo noonu xiina waswasa li abihim aadama xata awqaahu fi zalzala fi zalla xata awqaat fi zalla adama moom nga xam ne ndeysaan yàlla bi mu ko teralee ba pare ba gis iblis di ko noonu yàlla dafa ne adama mii mu ne ah mu ne iblis mii mu ne waaw mu ne ko sa noon la moytu ko iblis daal ne waaw xool ko bu baax daal di koy xàmmee yàlla ne ko bàyyi ko fi nga dem dugg àjjana yaag sa soxna ngeen dëkk def leen lu leen neex waaye garab gi bu leen ko laal loolu bisu àjjuma la woon bisu vendredi balaa 5 heures di jot iblis soppeeku na fi ba dugg aljanna daal di génne ib aadama ak soxnaam fa leen yàlla ne woon toog leen fii ci bisu àjjuma boobu yàlla mu ngi doon wax aadama kii sa noon la moytu ko balaa ngoon noon boobu génnee na aadama ak soxnaam ban bis la yàlla bind aadama isa ajjuma ban bis la ko dugal aljanna isa ajjuma ban bis la ko génne isa ajjuma bi hmm? te sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ko doon bàyyiloo xel aadama naan ko moytul kii sa noon la du yow rek yaa bani aadama laa yaftiyannakum shaytaanu kama axraja abwayka min aljanna yanziu anhuma libaasuhuma liyuriyahuma sawaatihima al araf 27 mu ngi ci biir saar bi dañ ci yegg yow doomu aadama mooy tandikul balaa seytaane di la fitnaal comme ni mu fitnaalee sa baay sa ñaari wëy jur sa baay ak sa yaay ak sa ndey sa baay muy aadama sa wëy jur bu jigéen muy xawwa mooy tandiku leen yéen doomu aadama yi balaa seytaane di leen fitnaal nu mu fitnaale woon seen ñaari wëy jur mu génne leen ci aljanna ndeysaan mu futti leen mu futti seeni yére ñu ne dung ci biti allahu akbar même aljanna ndeysaan bañ fa nekkee ndeke dañoo soloon ay yére iblis fekk leen fa ne leen dung futti leen fii ci àdduna tey nag ah fii ci àdduna tey kon la leen iblis def la leen iblis def doomu aadama yi bi ñu ñëw léegi-léegi maa kii ci tali bi ndeysaan moo ngi dawal xamul lu muy dawal mu naan xoola kii ndeysaan kii solul yére ma ne ko sol na desu sol na desu de am ngeen desu desu ban heure lañ ko nit war a sol ah suy tëdd ah ku sol loo xam ne yére boo xam ne moom ngay tëdde nga génne ko ci mbedd mi ngay dox ak moom ci kaw tali bi ndeysaan moo tax iblis bég na de iblis kontaan na ndax doomu aadama yi fexe na ba solatuñu yére futti na leen na mu futte woon seeni maam ca aljanna bu njëkk ba doomu aadama bu defee bakkaar day yëg ne dumm la def dumm moo tax aadama ak awa bañ yëg bañ lekkee garab ga hadis waxtaan waa ngi ñëw ci kanam ci saar bi ndeysaan borom xam-xam yi nee nañ seen yére yi dañoo naaw ñenn ñi ne seen wey yi wey yi wey yi moo doon yaram moo doon yëri moo doon moo doon der bi yaram bi yëpp ay wela woon maanaam lii la woon léegi nag ba ñu lekkee garam gi yëf yi daal di dem ba mu des lii pour lii des fi ñu koy xool ñu fàttaliku suñu bakkaar waaye li gën a wóor daal mooy ba ñu lekkee garab ga seeni yére yi dafa naaw dañoo soloon ay yére ñu ne dung ci biti ñu gis seeni awra yàlla mu ne ñu jël ñoom ñaar ñu tàmbali ndeysaan di xëcc ci garabu aljanna yi xob yi branche yu ngand yi di taf seen kanam ndax dañoo am kersa soo demee ci bible bi dañu ne aadama ak awa ba mu lekkee ba ñu lekkee garab gi dañoo nëbbatu yàlla yàlla wàcc biir aljanna di leen wër naan aadama hawa ayna antuma fu ngeen nekk loolu moo lay won ne bible bi dafa am ay njuumte yàlla nekk borom asamaan ak suuf laa yaxfa alayhi shay'un fil ardi naka lay wàccee biir aljanna di leen wër nga ñëw ci alquran mu ne aadama ak awa ba ñu lekkee rek wa naadaahuma rabbuhuma yàlla daf leen a woo direct allahu akbar ñuy dégg kàddoom mu ne leen yéen ñaar ñi ndax telewuma leen woon garab gi ñu ne ah kay mu ne ndax waxuma leen woon kii seen noonu la na ngeen ko moytu waaye iblis ni mu def aadama ak awa loolu moo lay wan ne borom pexe la loolu moo lay wan ne loolu olof yi naan ku la mag parce que moo leen mag ah moo leen jiitu moom lañ njëkk a bind ak ñii moo leen mag moo leen ëpp xam-xam law kaana al ilmu min duni tuqa sharafan la kaana xayru xalqillah iblis bu doon am xam-xam rek dana doy ci ragal yàlla kon iblis moo ñu raw kon am xam-xam taxut a ragal yàlla ndax bu doon loolu la iblis kon moom moo daanaka moo raw ñëpp ndax moo ëpp ñëpp xam-xam ndeysaan iblis dafa nax aadama ak awa ndax def leen a dig dig yoo xam ne yemu ci mais mu waatal leen ci yàlla ñoom ñaar jàppuñu woon ne am mbindeef ñeme naa waat ci yàlla di fen mooy léegi li am lii rek ay gis ci benn waaye boo xam ne dóor ko tu martu la naan la billaahi waaw non saa waay gis nga li ma lay wax nii billaahi laa lay wax fekk walaay gis nga billaahi boobu am na ci caaxaankat yoo xam ne sax barke laa ilaha illallah lañ lay wax ak yooyu waat yooyu nga xam ne kenn xamu fuñ ko jëlee barke laa ilaha illallah muhammad ra loolu moom na boobu façon waat la kañ la xew wala nga ne ñu naan la barke Seydina Muhammad boobu moom boobu moom ak kufru la moom boobu moom ak yéeféer la waxuma nag keneen nag barke Seydina Muhammad boobu moom kéeféer la moom waxuma keneen nag waaw waxuma keneen su fekkee nag am ngeen ko gën a màgg Seydina Muhammad ngeen natt ko ci Seydina Muhammad kenn du waat ci moom yaa Umar man kaana xaalifan falyahlif billah yes ma Omar bu mu buggee wax yaa maa ngi gën ci yow man yow ne ko déet Omar xanaa moo li ngay wax yooyu yo Omar ne alu xew ne ko yaa Omar mu ne ah mu ne man kaana xaalifan fal yahlif billahi aw li yasmu booy giñ kat giñal ci yàlla wala nga noppi man kenn du giñ ci man xanaa waa Sénégal déggul loolu dégguñu yonent bi ne man kenn du giñ ci man giñ jaamu yàlla la waat jaamu yàlla bu màgg la moo tax ñu ne soo waatee defoo ko da ngay woor ñetti fan pour yàlla baal la waat jaamu yàlla la di nga dégg ko bis waaw ma ne bark am na ko ñoo xam ne dañ naan man de ku ma giñal ci diw rek dëgg la waaw boo ne barke sëñ Mor Khoudia rek ñu ne allah ah non waaw sa waay sa waay jaru ko jaru ko jaru ko ndeysaan benn waay nee na ma ci benn magasin bu mag bu ma nekk ndeysaan ñuy wàcceel borom magasin bi ay bagage benn waay commerçant bu mag yegsi ñu ne ko alaaji diw mu ne bu ma ko waxati lu tax nga ma naan alaaji wañ ne ko ah man dama laa yéene nga dem màkk mu ne lu ma fayuti man bu ma ko waxati de lu may doyee màkk man dem fii moo ma gënal dem màkk mu wax fi mu bugg a dem xoolal rek nit ñi fu ñu toll quoi xool doomu aadama yi nit ñi sore la hawla wala quwwata illa xoolal nit ñi ni ñu réeree xool leen Sénégal nu ñu soree yàlla alaaji diw mu ne bu ma ko waxati waaw ah lu tax nga ma koy wax mu ne man dama la yéene rek nga dem màkk mu ne waaw lu ma fay uti lan laa fay uti mer waa ji dafa mujj di ko baalu non ba sëñ bi man maa doon waxtaan léegi doy na non li nga ma wax daf maa metti lu ma uti màkk subhanallah noonu noonu iblis noonu iblis defoon ñooñu sunu maam yooyu noonu la iblis di def sëdi sëdi xam ngeen ne ku daaneel sa maam moom ku da ku daaneel ku yëkkati sa maam yëkkati ko ba ci kaw ne ko ndul ci suuf xam nga ne yow sët bi doo ko rëcc wala ah wala nga entraîné bu baax de waaw ku daaneel sa maam daaneel sa pap bu la ne maa ngi ñëw war ngaa entraîné bu baax waaw waaw iblis kan la daaneel adama fa azallahuma shaytaan fa axrajahuma mimma kaana fii ñu nag adama ku ëpp doole ku ëpp iman moo tax yàlla rek moo nuy musal yàlla nanu yàlla musal saar bi mu ngi nettali loolu waaye kama taarradat assura alkarima li mashhadi min mashahidi alwaqia saar bi dafa ñëw ba tey du yemul rek dañu nettali histoire Adama incha allah dinañ ñëw ci histoire Adama ngeen gis ni ko alquran di faram fàncee waaye al saar bi dafa ñëw di ñu leeralal ndeysaan mbirum yowmal xiyaam allahu akbar saar bi ñëw di ñu leeral alaxira nit ñi ñaata façon lañ fay nekk saar bi nañu nit ñi danañ nekk ñetti groupe alaxira ñii danañ dugg aljanna ñii dugg safara ñii nekk diggante aljanna ak safara ci benn montagne bu tudd araf al araf allahu akbar loolu saar bi dinañu leeralal ñi dugg àjjana lan moo tax ñu dugg ñu dugg safara lan moo tax ñu dugg gaa yi ci kaw aaraaf lan moo tax ñu nekk fi dugg ñu ñoom lan moo tax demuñu safara lan moo tax demuñu aljanna ak lan mooy aaraaf saar baa ngi ñëw incha allah mbokk jullit yi di ñu leeral loolu ci fan yu nekk sunu kanam Euh, alquran a ngi noonu saar baa ngi noonu Euh, di ñu nettali dekki ëllëg yowmal qiyaam ak fay dëgg dëgg dëgg lan lañ fay fekk kon lan moo war a nekk sunu taxawaay bu ñu déggee ne ñii dugg nañ aljanna ñu dégg ne ñii dugg nañ safara ñu dégg ñii ñu ngi aaraaf kon ñun lan moo war a nekk sunu taxawaay ci ñetti groupe yi ana fan lañ ci war a bokk ci ñetti yi sar baa ngi ñëw di ñu leeralal loolu mbokki jullit yi waaye sar baa ngi ñëw di ñu nettali histoire yonent yi alayhimu salaam histoire nuux histoire xuud histoire saalax luut soayibu muusa waaye is- saar bi tàmbalee ci nettali ñu ci ki doyen doyen de doyen wu yonente yi cheikhul ambiya mooy nuux alayhi salaatu wasalaam saar bi ñu nettali moom nuux la mu daj ci ay coono ci féttéerlu ci dëgër bopp ci weddi ci ay nit yu ne keng keng keng keng keng di nuroog waa Sénégal waaw daanaka da nga naan Sénégal nitu nuux ya ñooy seen maam ngeen baal ma de wallahi alazim xaw ngaa wax loolu xaw ngaa wax ne waa Sénégal nitu nuux ya ñooy seen maam ci dëgër bopp guñ dëgër bopp ci boo leen di wax mbirum yàlla ak mboo leen di wax mbirum islaam ci mboolem boo leen di wax ci mbirum tawxid mbirum kennal yàlla nitu nuux ya kennal yàlla lañ bañoon damay jàngal xale yi barki demu suratu nuux ma leen ci jàngal huit aaya yu njëkk yi yàlla mu ne inna arsalna nuuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an yaatiyahum azabun alim loolu la wax man yàlla maa yónni nuux ma ne ko demal nga waar say nit fàttali leen mbugal mu métti mi nuux bu mu ñëwee lu ma qaala ya qawmi inni lakum an ibudullaha wattaquhu wa atiun ah waay waay waay sama gars yi ragal leen yàlla an ittaqullah ragal leen yàlla waaye topp leen ma su ngeen ko defee lan ngeen di am ah yaxfir lakum zunubakum ah ila ajalin musamma ya su ngeen toppee yàlla rek su ngeen ragalee yàlla topp ma rek yàlla baal leen seen bakkaar ba pare yàlla bàyyi leen fi ngeen di dund ba ci kanam waaye nuux ak gaa yi fan lañ mujjee te nu programme boobu daf ko continuer de da'awtu qawmi laylan wa naharan summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israran fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana waaye nu dem na di leen woo di leen woo ba yow yàlla su ma leen di woo jaalu asabi'ahum fi azanihim wastarsaw siyabahum wa asarru wastakbaru su leen nuux di woo naan leen kaay leen ragal yàlla dañuy jël seeni kaala muur ko seeni bopp ba do- seeni ñaari bët ñooy feeñ ba pare ñu dugal kaa loxo yi ci biir nopp yi ci biir kaala gi dugal ko ci nopp yi ba pare yemuñ ci de xam nga lii rek doyoon na ba pare ñu naan di yuuxu pour pour bu kenn dégg lu nuux di wax yemuñ ci laxas seeni nopp yi laa wax pour kenn du dégg waaye jël seeni baaraam fàtt ko ba pare di yuuxu nag ñooñu wowle nañ wala wowle wuñ doy na lu lay wan ne wowle nañ ñaata at la leen nuux woo déedéet balaa balaa la 900 yi da'awtu qawmi al-layli wa nahaar guddi ak bëccëg waa jaa ngi woote yamu ci de summa inni a'lantu lahum wa asrartuloo su day dem ci place publique bi su guddee mu dem ci kër yi individuel di woote su bëccëgee mu dem ci place publique yi ba pare boote boole ci guddi ak bëccëg yamu ci lool ne nga bo nga doog a indi addi nag alfu sanatin illa xamsina aman li lay wan ne nag sax dañoo gën a dëgër bopp nag bi leen nu woowee ba ñu lànk ba lànk ba lànk ba lànk lan lañ def dañoo woote assemblée générale ba ñëpp ñëw dëkk bi kenn manquéwul ñu ne lan wax leen ma ko ñu ne gis ngeen kii paa bi paa bu màgget bi yàlla daka gedd du dee mook sunu maam yi ñoo fi nekkoon sunu maam yëpp dee nañ moom dong nga fi des bu leen ko topp bu leen ko dégg wa qaalu laa tazarunna bu leen bàyyi seen yàlla yi loolu waa Sénégal di wax njaggee allah maw bebe njaggee ko tawndo ɗon no ɗo yummiraaɓe baabiraaɓe voilà ko ɗum ɗon mbiya toon loolu waa Sénégal di wax li la waa nuux yi waxoon bu leen bàyyi li ngeen fi fekkoon seen maam yi waaw na ngeen ci jàpp ba ne kañ nga gis ku wax loolu ni nitu nuuxi doon def noonu lay def fa qaalu la tazarunna alihatakum wala tazarunna wala tur yaango bi yàlla ne alihatakum ba pare su yemoon foofu kon ñoom am nañ droit ne yéen da ngeen di ngeen di wax loo xam ne neexu leen ndax yàlla ne ñoom dañu ne bu leen bàyyi seen yàlla yi waaye lan lañ defoon yàlla mooy nit ña alihatakum kan la ah la tazarunna kan la waddan wala suwaan wala yaxuusa wa yauuqa ñii lan la borom xam-xam yi wax ci ñoom ay lan lañ woon ay ay nit ñu baax lañ woon ñu daan jaamu yàlla ñooñu dee ñu def ay estati fañ daan toog ñu ne ñu ngi nii bu leen leen bàyyi de xam ngeen lu tax mooy chaque jour sax dama koy wax xale yi jël photo estati nitu yàlla wala benn kilifa diine nga jël estati wala nga jël nga dem photo def ko sa biir néeg wala sa biir saal wala nga takkal ko sa doom wala wala wala wala xam nga lu muy jur xam nga yow xam nga d'accord sax baa ji na naan non non non non man kii dama ko bëgg rek dara nekku ci moo dama def ko fii sama saal yow boo deewee ñii ñëw sa ginnaaw est-ce que xam nañ sa jubluwaay yow ci lii lu taxoon nga def ko jeex na ñoom bañ sampee ñooñu ba génération bu njëkk ba dee ñeneen ñu mujj ñi buñ ñëwee lu ñu lu ñu wax ah ñun kat sunu maam yi lii lañ doon topp mu ngi nii rek ñooñu di ci buuf di raay di diw di sangu di naan di xoos di takk ku am problème dem tàllal la loxo kuy tukki ñëw tàllal la loxo jeex na léegi ña ko defoon xoolal dee nañ gis nga tey yéen a ngi jooy loolu Sénégal am na crime yoo xamante ne ña ko defoon dee nañ tey jii bu ñu yëgoon seen ginnaaw li ñu fi bàyyi i ñëw nañ bu yàgg na yàlla lii moom man santaane wu ma ko ndax gars yi yokk nañ cee yokka yokka yokka yokk bu doon soow la léegi lan la bu ma kenn wax zirik bu doon soow la léegi lan la ndax zirik sax boo ko naanee di nga yëg dara xam ngeen zirik boo jëndee benn potu soow nga def ko nga def ci siwa ndox ba léegi am na lu muy saf waaye boo defee bëri ko nag ba pare nga def ci suukar xanaa léegi da nga ne am na suukar rek waaye xam nga ne moom naanoo soow wax dëgg yàlla naanoo soow xam nga ne pot boo ci defee bëri ko wax dëgg yàlla naa na too soow waaw xeeñatul ndax sax soow xeeñatul soow c'est ça loolu moo tax kere dara ci diine nekk danger saar baa ngi ñëw di ñu nettali loolu waaye saar bu muy nettali histoire Moussa alayhi salaam Moussa moom tamit gis ngeen la mu daj moom ak bandi boobu tudd Firawna saar bi ñëw na encore di ñu nettali amma naala bani israil min bala wa shidda bani israil xeet bu bon bu alku bi nga xam ne fa ñu jaar ci ay musiba ak ay nattu saar baa ngi ñëw mbokk jullit yi di ñu nettali loolu ci wuute gañ doon wuuteeg seen yonent ak dëgër bopp ak wowle gañu wowle woon seen digganteeg seen yonent ak seen digganteeg seen borom وتناولت الصورة أيها الأحباب كذلك المثل المخزي للعلماء السوء وتصورتهم بأسنع وأقبح ما يمكن للخيال أن يتصوروا suuratul kalbi saar baa ngi ñëw di ñu nettali li gën a bon te nga xam ne tey loolu la ñuy dund mooy ay borom xam-xam yu yées ay borom xam-xam yu bon ay borom xam-xam yoo xam ne kenn xamul seenu mbon nu ñu bonee ndax nu ñu bañee diine yàlla tabaraka wa taala saar bi day ñëw di ñu nettali loolu ba sax ki yàlla jël modèle di ko wane tey ci mbonam saar bi di ko nettali yàlla daka mujj alak mu mel ne xaj fu mu toll di yalkat làmmiñ bi di génn ni xaj di mare di lax-laxi làmmiñ bi di génn ah nga xam ne day dem ay cinquante ay ay ay ay cinquante millimètres ay millimètres yoo xam ne làmmiñ bi dina ko génn ah wala nga koy me- mesure ay mètres yu ndaw ay vingt cinq centimètres ak yu demee noonu làmmiñ bi noonu muy génnee boroom xam-xam bu bon boobu noonu la ko yàlla mujj def pour yàlla wan ñu ku am xam-xam au lieu nga jaamu ci yàlla waaye ngay détourné jaamu yàlla yi di fenal yàlla di wax ci diine ji loo xam ne démb maa ngi seetaan 2S démb 2S TV xaw ma émission bi dafa yàggoon ñu koy tegaat mais man démb dajaat naa ci ci benn waay boo xam ne dañ ko doon laajaat ci mbirum maye jigéen ak mbirum ay muy firi aaya boobu naan illal lamama maanaam démb sax daw na res tuuti ndax na mu ko firee woon dafa ne woon nit mën naa foon jigéen te am doo am benn bakkaar ndax day testé rek day testé day xool rek mën ngaa làmbatu jigéen ba mu neex la après nga xool ñu ne ko loolu nag du bakkaar mu ne non non day def test day def test démb moom lu mu wax mu ne euh, jigéen mun naa maye boppam jigéen moom mun naa maye boppam gars yi ne ko non non non jigéen mu ne non jigéen est-ce que buy jaay këram day indi ay day indi kilifa ñu ne ko déedéet mu ne jeex na loolu mooy dalil yeneen bi alayhi salaatu wasalaam mu ne euh, jigéen dafa war a am kilifa alquran moo ko wax fankihuhunna bi izni ahlihinna na ngeen leen takk ci seen na ngeen leen takk ci seen ndigali wayjur yemu ci loolu mu ne alquran hadis ne la nikaaha illa bi wali kenn amul droit maye jigéen lu dul ci ay ndigali waajuram wala ñu ne jigéen foog mu am kilifa gu ko maye jigéen wala ku baayam baayale léegi nag bu ñu bëggee gëm la xale jigéen yi yéen amul kilifa kon lu xew luy xew xale jigéen dañuy génn fii ku leen neex jox seen bopp xoolal tey rek yow mi ñi nga- ñi am kilifa sax ñoo am problème waxuma laa ñi amul kilifa wala xale jigéen yi ñuy maye ñoo am kilifa dañoo am problème ci seen i sëy ñu ngi may yónnee léegi ci whatsapp bi benn waaye boo xam ne jabar ji da kaa jàpp di ko dóor yónnee ko ba ci kaw dóor koy suuf ba mu tàll ñaret waaw mu ngoog kon nag eh, yal na nu yàlla won dëgg saar bi ñëw na mbokk jullit yi yemul ci di ñu won borom xam-xam yu bon yu yées yooyu waaye saar bi yàlla nga koy tëjee ci saxal tawxiid kennal yàlla ak di wax doomu aadama yi nañu yëg ne lor ak njëriñ ci yàlla rek lay bàyyeekoo kenn du lore kenn du jëriñe ku dul yàlla loolu fekk gëmuñu ko ne yàllaay jëriñe yàllaay lore loolu fekk gëmuñu ko dugal ko suñu xol yi duñ dem suñu jaamu yàlla yi dara du ci baax naka la nit di gëmee yàlla ba pare gëm ne am na keneen kuy jëriñaate wala kuy lore ku dul yàlla moo tax gis nga xis xisasul ambiya lu jar a jàng la xoolal yonent yi ni ñu toll xoolal buur yu kaccoore yi ñu dajaloon xoolal nit ñu bandi yi xoolal saay-saay yi yonent yi dajaloon xoolal rek Ibrahima ku mu dajaloon Namrud Ibrahima lan la takkoon yan ndombo ah yan téere ban lam la takkoon yan gàllaaj fan la doon laqatu suñ ko waxee rek mu ne xasbunallahu wa ni'mal wakil yàlla rek doy na ma yàlla rek Moussa kan la dajaloon firawna ki gën a bon ci àdduna ki nga xam ne moo ne ana rabbukumul aala Moussa ban ndombo la takkoon ban téere la takkoon man lam ban gàllaaj lan la doon bind di naan lan la doon raay yonent yàlla muhammad alayhi salaatu salaam lan la dajaloon ba mu dajeeg ñoom abu jahlin yow ma badr lan la yonent bi takkaloon saxaaba yi ah xoola ñun fii tamxarit sax da ngay gis gars yi di bind aaya xul naam wa antum daaxirun aaya boo ko lekkee doo dee ci at bi nga gis ko yor ngandum danku cere dugal ci ngandum këyit waaw lekk man de lekk naa ko du ma dee loolu mooy tere nit dee loolu la aaya bi di tekki xul naam wa antum daaxirun mooy doo dee ci at bi ah xoola pas-pas yooyu foo nit ñi delloo ci seen borom foo nit ñi am tawxiid foo nit ñi kennal yàlla xam ne yàlla rek moo la war a doy su la yàlla doyul boo xam ne dara dootu la doy dara ci àdduna dootu la doy ku yàlla doyul kenn mun koo indil dara ba mu doy ko saar bi ñëw yàlla di ko tëje di won ne moom yàlla tabaraka wa taala du nangu mukk ku koy jaamu di ko booleeg ay xërëm abadan yàlla di yëg ne moom kenn la amul ndend waaw moom kenn moo bind lépp moom yàlla tabaraka wa taala loolu la sunu borom subhanahu wa taala tëje téere bi kon gis ngeen juróom benni tomba ngi nii yoo xam ne saar bi wax na ci saar bi at-tasmiya sumiyat hazihi suura bi surati al araf li wurudi zikri ismul araf fiha li tax saar bi ñu tee ko araf wax nañ leen ko mooy dafa am benn baat ci biir saar bi bu ñuy wax bu ci nekk ci biir saar bi bu tudd araf moo tax ñu tuddee ko saar bi waaw xeer bo xeer la benn montagne bu ngand la mu ngi diggante aljanna ak safara foofu la ko yàlla def waaw ibnu xaj ibnul jarir wax na jëlee ci huzayfa mu ne su'ila an ashaabil araf fa qaala hum qawmun istawat xasanatuhum wa sayi'atuhum laaj nañ ibnu jarir ñu ne ko waaw nit ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk aaraaf ñii ñooy ñan mu ne ñii la seeni bàkkaar ak seeni tiyaaba tolloo ñu tere leen dugg aljanna ñu defal leen escale ci xeer boobu tudd aaraaf allahu akbar kon mbir maa ngi noonu saar bi mbokk yi sittun wa mi'atayn min al ayat ñaar téeméeri aaya la ak juróom benn aaya saar bi mu ngi wàcc makkatal mukarram soo jógee suratul fatiha teg ci baqara ban saar nga ciy teg ala imran ban nga ciy teg suratu nisa ban nga ciy teg suratu maida ban nga ciy teg suratul an'am saar bi nga ciy teg muy aaraaf mu nekk ñaataalu saar juróom ñaareelu saar boo jógee ci kaw incha allah bi iznillah muqaddima bi lañ doon def samedi bi iznillahi tabaraka wa taala bii di ñëw mu ñu yàlla bàyyee bakkan may ñu fekke ak tal dañuy dugg ci saar bi incha allah bi iznillah la yàlla def ci ñun dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu